c'est dommage réussite totale lañ am si mobilisation parce que dina mën a permettre à Sall mu xam ne réew mi moomu ko et puis deux mandats la am pour mën a dem parce que lu ñu boole foofu mooy que Macky Sall du bokk ci élection yi mooy jàmm gën troisième mandat et d'abord pour ñu waxtaanee euh, ñetti point prisonniers politiques yi ñu jàpp ak bàyyi ñin gàllankoor pour ñëpp bokk ndax ki ki warul bokk warul xañ kenn si bokk loolu deuxième deuxièmement mooy ñëpp xam nañ ni au sein de Yewwi Askan dañ yàgg am problème depuis législative bi Khalifa Sall waroon xaaroon na loolu war na ko xam parce que xam ne tension bi am entre ñoom Barthélémy jaas bi génn ci taxaw ak ak ak Pastef kuy acteur politique war nga xam ni tension yi dina am yooyu ni ñu bett parce que ñaari clan la coow li am na discussion am na dina refléter wu ci militants yi ni ñuy ñëwee te beneen bi ma bëgg ko wax ne ko dafa am yu bëri yoo xam ne ñun dañ ko doon wax biir Yewwi Askan Wi euh, yàgg nañ avectir Ousmane Sonko parce que ñun Ousmane lañ gënoon jege xalifa Sall rôle am la nekk yàgg naa ko wax benn ligne la am ligne boobu di si teggeeku mooy c'est des socialistes depuis mu am ambition pour nekk président de la République bu ñu demee ba sa cappaandaw ko ku mu war exécuter da koy exécuter ci l'ai dit ce que Barthélemy a dit et ce a fait c'est pas du tout normal logique si entité entre waru ko def waru ko def. moom il est pas libre de non mais de attention libre ak tamit on est nous sommes en politique. waaw s'il dit que dialogue moom la dialogue am la il se trompe lourdement.